Euh, maanaam euh, président Ablaye Wade la ak président Diomaye comme ni ngeen gisee décision bi démb euh, le parti démocratique sénégalais à travers son secrétaire général ab Ablaye Wade ak le candidat Karim Meïssa Wade candidat coalition Karim 2024 donc dañ décidé jàppale Diomaye président tey nag Diomaye moo ñëwoon pour seet si ab Ablaye Wade donc dugg nañ gisante nañ tête à bi mu génnee def na si signe victoire comme ni ko Ablaye Wade doon defee kon donc am nañ ci yaakaar ne PDS yëpp nañ taxaw soutenir la coalition Diomaye président pour mu gagner suba incha allah. lu mbégte la rek Ablaye Wade moo demee noonu gis nga tey ñi fi nekk ñëpp meroon nañ trop ndax ni ñu def suñu candidat président Karim Wade mais tey ñëpp bég nañ ndax ñëw nañ ci këru Ablaye Wade Ablaye Wade ku mu jàkkaar loolu da ngay bég mbégte moomu nag la Diomaye jël te defe naa dina ko yóbbu ba ci victoire incha allah. xel ñaar amul lu ñuy opposé wu 26 ans gouverner 12 ans ñu ñëwaat si opposition bi 12 ans waa Diomaye nag yàlla def nag mu génn su ma juumul sax moo génnagum deuxième ndax mi ngi baatale record bi bu baax léegi nag soxla na soutien Ablaye Wade apporté na soutien am dinañ ko jàppale dinañ ko voteel te dina gagné incha allah à cause de président Wade. am ngeen yaakaar am nañ si yaakaar bu baax dina suba le soir vingt 24 ah Diomaye remporté victoire bi rek. waaw su ndigalu waa ñun moom waa PRS moom takku nañ comme persi incha allah waaw pare nañ yàgg na yàgg na maaleykum ah waaw euh, muy alliance stratégique boo xamante ni <laughs> tout le monde sait que ñoom bu ñu àndee ak euh, toutes les forces qui son dans la coalition Diomaye Faye koo xamante ni euh, boo demul ak leader bu bu bu sa leader joxewul moo d'ordre sax cinq cent mille voix ngay am bu yokkee ko kon nag képp ku jëm naan day jàll premier tour na xam ni sénégalais duñ ko nangu et personne ne peut passer au premier tour si ce la coalition Diomaye président mhm. parce que gis ngeen ko mais euh, yéen yéen vous êtes sur le terrain le le, le jeu est plié mhm. c'est-à-dire nga ñëwati indi PDS militant wam président Wade ñaan wax ni mi ngi wax militant wam yi ñi fi toog ak ñi fi toogul mhm. nañ jàppale euh, Diomaye ñu toog joxe mot d'ordre bi ñëpp a ngi ci terrain bi di ko liggéey waa fan la keneen di jaar premier tour rek. lan la mën a a loolu daal en gros loolu la je vais laisser peut-être la primeur. Mm. Euh, à El Malick Ndiaye. Mm. et à la coalition Diomaye de vous dire euh, le contenu de l'entretien. Mm. ndax loolu ñoom laa koy bàyyee mais en gros daal damay le ni tey jii force yi nekk en présence il est impossible pour qu'un quelconque parti wala un quelconque politicien. taxaw ci biir réew mi naan euh, euh, di fraude élection wala di ñu wax ay waxu 53 pour cent wala gagné nañ premier tour ku ko jéem ah coxaa kenn du nangu la confiscation du vote populaire ça c'est impossible moo dem eh, ànd na ak ki wam mais boo leen ko contacter il pourra vous faire le compte rendu ñoom il vous dire ce qui est approprié lan la ñu waxtaane ndax am na yoo xam ne biir la doom ak sët ay sët ak kii mu man du man maa ko war a wax mais li ma mën a wax daal mooy PDS dolli sikku na si coalition Diomaye Faye Ablaye Wade ñaan na ndax mag nag <laughs> am na am lu mu lu mu lu mu am te boobu ba léegi Maguette si ñoo ànd moo amee euh, les comités électoraux démb ba tey nelawuñu ndax mi ngi joxe moo door du comité électoraux yi Ross Béthio tey sànq rek lañ doon waxal pour ñu jug taxaw pour surveiller vote bi ak mobiliser les militants au niveau des des zones rurales pour ñu génn dem euh, voter pour pour mot d'ordre bi wàcc ba ci militants yi donc moon même man personnellement depuis euh, démb gisu leen ma ci meeting bi parce que j'ai un travail de communication interne que je devais faire qui consistait à faire descendre euh, le mot d'ordre du président Wade Euh, et de du président Karim Wade à la base maanaam zone yu gën a éloigné fale ñu jot note bi même bu fekkee nekkuñu ci internet wala dara fale ñu jot la not du président te man nag Nafi Diallo chargé de communication du du PDS may profité fii pour wax y a pas eu de comité directeur mm. c'est faux c'est archi faux bu amee nañ ñu wax fan la kan la ak ñan ñoo fa nekkoon may wax nag ni man soldat wu Ablaye Wade la mm. moom bu waxul woo lu mu wax loolu la ñuy doxal mm. te nag moo ni nañ jàppale Diomaye Faye waaw loolu nag ah nañ nañ dóor ba suba <laughs> suba bu ñu gagné ñun ñuy ñuy jubilé rek di ngeen ko fi gis xëy na gannaaw suba.